Euh, illa réunion bi tay atelier la bo xam président de la république dafa amon lu mu junj muy souveraineté alimentaire mu diko xalat ba nga xam bi wayna jël ko ko ci ministère de l'agriculture mi nga agriculture ak équipement rural mu yok ci souveraineté alimentaire ci yaatuwaayam ministre Ali Ngouille Ndiaye yaatal ko ba woo ci ministre élevage woo ma ci man bi nekk ministre pêche parce que ñun ñett ñi ñoom ñoo constituer le monde le développement rural euh, bi ñu dajee nag tey dañ doon lancé pour wane officiellement lii nga xam ne président de la République dénk na ko jël na ko def na portage politique bi woo na acteurs yi

yo xam ñu ko ci gannaaw comité scientifique bu dinañ jël organisation socio-professionnelle bu mail pour nga ci thématique yi nga la souveraineté alimentaire mën dépasser vision nekk une réalité pour le Sénégal délai nak taxna fi semaine prochaine organisation bu mu am séminaire yo xamni ne dañ ciy ku nek la nga am nga génne ko ci bo am nga am ci Sénégal ci yaakaar bo xamni bi nañ ko ci yow tamit amna atelier yu nga xamni nañ ko ci def ba thématique bu am sa rapporteur ñu dajal rapport général ko rapport provisoire a au niveau du gouvernement ci premier ministre bu ñu paree ñu muur ko nag jox ko monsieur le président de la république